daane la kook alhamdulillahi rabbil alamin julli ci sangu sang yi seydina limaamul mahdi yu sallallahu alayhi wa ñaan ko mu fayal nu ko dolli nu ay leeram a xéewalam tax su ci barkeem defal ko njabootam nga teroo la Isa alayhi salaam nekk ci boppu njaboot gi yal na yàlla dolli seen i leer ak seen xéewal seen barke defal ko waajur yi jiitu yal na yàlla yee salaat yéen ma leen jëggal ci ñoom ñaanal sunu xalifa moom seydina Baye Abdullah mu yàgg fi loolu te ànd ak wér yàggam fekk wéram ëmbal nu njaboot gi yëpp ci góor ak jigéen mag ak ndaw sunu baay Mamadul Muxtaar mu sunu maam si Amu Joon sunu baay imaam Bachir sunu baay Mamadul Amin sunu baay maam Libaas sunu baay imaam Muxtaar sunu baay maam Alsaan yóbbal nu njaboot gi yëpp ñu ngi leen di ziyaara bu baax ñaan yàlla yàlla defal leen jàmm ñaanal sunuy imaam ak sunuy muxaddam yëpp yàlla na leen yàlla defal xéewal ak sutur ak teraanga ñaanal ahlulaahi muy kurel bu yiwu tedd wi nga xam ni ñoo nangu dogaluk sunu borom bi ci Mahdi Isa yalla na yalla def sunu ngëm ñu jariñoo ka dina ka alaxira yomba na yalla yalla nañ ko yalla defal am mbégte kontaan delu si wat andat ak yeen ci téré diiné ji bu ko nak anda euh, ci ak euh, sodan TV seetlu ba ñu ngi ziar bu baax bu ko defee nak daal di continuer fi nga xamni fofu la ñu tollu won ak yeen si ñetteelu bi muy li nga xamante ni nii mooy téere diine ji di bustal mu xib diina la ñuy waxtaane ba sama maam Cheikh Makhtar la ñu ngi koy ñaanal maam Cheikh Makhtar yàlla na yàlla dolli ay leeram defal nu barke ci jotaay wi ñuy jottali bindam ci barkeem moom di ñaan yàlla defal nu ndam ci barkeem ñaan yàlla dolli leeram ak xéewalam tasuma ci ay barkeem boo ko defee mbokk yi mu ngi toll woon ak ñun ci li nga xamante ni li bàyyi lay salaa alei wa sallam waxal boppam ci bi nga xamee ni toll na ci ñu ko yónnu mu ne wala ma kuntu sabiyan bi bàyyi lay nekkee ab ndaw in arsalani abbi ilal falaati bu ko bàyyam yónnee ca tool ya li at luba undan aw ximtan ngir mu utali ko bant wala ab laat mu ne azhabu day dem waa région te dina dellusi bilaa bi in ci lu dul dara ma yi lu mu àndal bàyyi lay yónni nanu ko moom sallallahu alayhi wa sallam moo ko yónni waajuram maam Alsaan bàyyi lay dem na uti bant ak laat li ni daan takke bant ya bàyyi lay dem na dellu si ne indiwul dara koo yónni nag mu ñëw indiwul li nga ko yónni woon di nga ko laaj bi nga xamee ni ñëw na te indiwul dara wa yaxuulu ab yi baayam daal di koy laaj ni ko ay na la ana bant ba ma la yónni woon faaxulu aqulu tontu na ko loxo ñeel ko moom seydinaa limaamu sallallahu alayhi wa sallam tontu na baayam lam ajib shay an indiwuma dara li anal ashjaara tasjudu lii wa tusallimu alayya ndax garab ya de am naa kersa ci ñoom garab gu ma dem pour dam ma ca ab bant ma gis ñu ko daal mooy sujootal di julli ci man baay bi daal di noppi léegi nag li war àddina war a seetlu mooy ndax li maam Alsaan nangul maam li maamu ñun suñuy bàyyi dina nu nangul parce am na loo xam ne ay tegtal la yoo xam ne ay nit a ko doon gis ñëw di ko nettali maam Alsaan ak maam ko mundoo ci Seydina Limaamu am loo xam ne maam Alsaan a ko gisal boppam ci doomam am loo xam ne maam ko mundoo ko gisal ci doomam waaye léegi man ndax sama bàyyi sëñ na ma yónni ma ñëw naankaan kaan karab yi dañ maa nuyoog dañ maa sujjoon kon boobu boobaa din ma doo dóor yu metti waaye gis nga maam Alsaan mi noppi noppeem googu dëggal waxu bàyyi lay sallallahu alayhi wa kon nga xam ni moom xam na kan la jur ndax bu mel lu mel nii bu amee léegi moom ñépp a ngi war a déglu pàppam bi ko yónni woon léegi la la war a taxawee ak la la war a jëf bi nga xamee ni loolu am na fa yaskutu àbbi baayam day noppi noppi doylu ndax li ko sanga bi wax doy na waaye wa yaalamu ma absaan xam ni na anna zalika xaqun li ko bàyyi lay wax dëgg la du ko kalaame kenn jàppewu ko it ak dof parce que am na noo koy waxee sa waa ji mu ni kii dafa dof jàppewu ko ak dof gëm na ko te kalaamewu jëkk ak kenn loolu nag muy firndeel ni kii bu màggee am na lu mën a doon loolu bàyyi lay nettali nañu ko ci boppam mu nekk loo xam ni lu am solo lu mu tund digganteem ak baayam Maam Alsaan Cheikh Maxtaar indi nu ko ci téere Maam loo nee na wakkaana xisaali xisaalihi mu ñëw nag ci jikko yi nga xam ne yàlla defoon na ko ci sangal mu ne wakkaana nekkoon na min xisaalihi ci ay jikko yoo xam ni feeñoon na ci moom fii siarihi ci ak ndawam bàyyi laay daal bokk na ci jikko yi mu feeñal ci ak ndawam mooy anna kulla ma qaala lépp loo xam ne wax na ko aw wala sax ra'ahoo mu gént ka fii manaami ci ay nelawam yaatii day ñëw sarian ci lu gaaw ah, loolu tamit ak signe la buy wane ni kii bu màggee dina doon dara kon ci ndawam daal feeñaloon na ci lépp lu mu leen wax wala mu ni leen gént naa nangam géntam googu da koy gis yaati sariyaan mu ni day ñëw ci lu gaaw yooyu na ah ma xaamala koo xam ne tey am na ñoo xam ne dañuy istixaar pour gis am ñoo xam ne dañuy dugg xalwa pour gis yow tey jii nii nga nekk ab ndaw loo gis loolu day am te wirdoo istixaaroo fatuwoo defoo dara duggoo xalwa ah yàlla jagleel na kooku moom yàlla jagleel na ko ak ak jagle loolu maam Maxtaar wax nanu ko ci jikko yi nga xam ne feeñal na ko ci ak ndaw Mame Makhtar di la fàttali li nga xamante ni lan na la ci loo xam ni cosaan la ci ay nitam di xeetug léegu wa kaana min aadati xawmihi annahum yusaafiruuna fi kulli sana bokkoon na ci li nga xamante ni nii lébu yu cosaanoo woon nañu ko ci sawuk jant ci bi bàyyi laay nekkee ci seen biir mu nekk loo xam ni cosaan ba mu fekk ci ñoom la te ànd ci ak ñoom dund ko ak ñoom mooy fi kulli sannatin dañ daan tukki ci at mu jot waxta tii bi jar in saa yu li nu bay ñoree rek ilaa waxti xuróof yi ba ci waxtu lolli dañ daa daan def loolu ànd ak ñoom tukki ci waxtu ñoro bay bi ba keroog ñuy lolli wakaanu nekkoon na moom seydinaa limaamu sallallahu alayhi wa yam suuna naxwa ndar wa naxwa banjul nekkoon na koo xam ni daan na dem ànd ak ay nitam ci ñaari dëkk yi nga xam ne ñoo gënoon siwe ci jamono jooju nekkoon dëkk yoo xam ne tubaab ya fa dëkkee woon moo taxoon ñu bari daan fa dem di uti xéewal muy Ndar ak Gàmbi waxuma ñoom ñaar ñooñu Madina taari ñaari dëkk lañu leen nasaara ñeel tubaab yi wa ayrihima am tamit yeneen i dëkk minal bilaadi yoo xam ne ñu ngi woon ci ci ci ci dëkk bi ci réew mi yoo xamante ni it nag nekkoon a dëkk yu daan uti mu ne yat lu boona risqa dan daan dem uti wërsëg kon mbokk yi lii de jar na leeral mooy Seydina Limaamu sallallahu alayhi wasallam da daan dox ànd ak ñoom ñuy dem Ndar di dem Gàmbi uti lan xéewal wërsëg bi bàyyi lay wootee moo toxoon mu laaj leen ni leen fu wërsëg nekk ñu ni ko penk fu am am nekk ñu ne ko penk fu xam-xam nekk ñu ne ko penk mu ni bu soobee sama borom bi ma yónni lépp dina ma fi fekk bi mu ootee la gëj a génn bàyyi bi mu wootee demul benn dëkk uti bi mu ootee la topp avant mi woote nag génn na waaye bi bàyyi lay ni ajiboo daa yallaahi yax ma saral insi wal jinni inni rasulillahi ilaykum amatul benn dëkk boo xam ne bàyyi lay teg na fa tànkam uti wërsëg amul booba la annoncé ni incha allahu fii ma nekk lépp dina ma fu fekk kaddu gi jib na mu ni lépp dina ñëw incha allahu rabbi ñaar rek imma li imaani wa imma li tun ima allati xawda da ñëw gëm si ma wala nga ñëw xéewlu ci xéewal gi nga xam ni mu ngi may wër te loolu ñun teg nañu ci sunu bët ba mu ko waxee léegi boobu ba léegi day gën di yokk rek waaye delluwul ginnaaw kon nag bu ko defee mu nekk loo xam ni lu lu lu jara leeral waa addina la yatlubuuna risqa dañ fa daan dem ngir wuti wërsëg baaduhum ñenn yi yu taajiruuna dañ daan jaay danaan xool li nekk fii te amu fa ñu jël ko yóbbu ko fa jaay sunu jaayee ba pare xool la nga xam ni amul euh, am na foofu te amul fii ci yoof fii ci ndaga ñu jël ko indi ko mu ni loolu lañ doon def wa baaduhum ñenn ñi yabiuuna li nasaara dañ daan jaayal tubaab yi tubaab yi di leen fay wa baaduhum ñenn ñi ñoom nuuti yuuna ay mool lan yoo xam ni yasiiduuna dañ daan yasiiduunal xóota dañ daan baali ay jën ñoom da daan dugg géej nappi jën bu ko defee loolu am na ñoo xam noon noonu lañ doon def wa nañi ñenn ñi yattaxizuuna jamalahum dañ daan jël seeni gëléem wa yu na ñu leen di ñu leen di euh, tàggat ñu jël seeni gëléem bu ko defee di leen former tàggat leen di leen former pour ñu nekk lan iidan ay njëkk nga xam ne am ñoo xam ne dañ jëloon seeni i gëléem former leen pour ñoom ñu mën a nekk ay njëkk bu ko defee mën a dem foofu pour liggéey ci yenn bagages yi di yàllu jël ko fii yóbbu ko fële bu nu paree ñu fay leen ci wàllum transport beeg yooyu wa haza mu ni lii kulluhu yëpp misla ahli makkata sarafahallah mu ni tey lii ñu la nettali mam ma euh, mam maxtaaloo nee lii ma lay nettali ci li bàyyi lay doon def te fekk ñoom ñu koy cosaanoo mu nekkoon seen aada ñoom mu ni boo ko xoolee misla ahli màkka te dafa mel ni ñooñog màkk sarafahallaahu yàlla na yàlla barkeel dëkk bu tedd boobu nga gis ni kon Mame Makhtar Lo mu ngi lay xamal ni la kon lii de gisuñu ko woon lu dul ci waa màkka ñi nga xam ni yàlla barkeel na leen yàlla na yàlla dolli barkeel leen mu ni fakkaanu nekkoon nan yaxsiduuna shaam fil ba'dil waxti waa Màkk kat ñoo nekkoon ñi nga xam ni jàng nañ ci téere ni ñoom yenn jamono yi dañ daan dem saan fa saam fil ba'dil waxti ci lenn ci waxtu yi kon nag ñoom yenn waxtu yi ñoom dañuy dem saam pour la uti la am saam jël li am màkk te amul saam yóbbu jaay leen bu nu paree jënd la am saam te amul màkk dellu si jaayaat ko waa màkk kon nag bu ko defee mu ni wa yaxsiduuna misra fil di fii fii la aaxiri ويقصدون المصر في بعض ال آه، ما نكاي بام دي ديغا بو ما نتي ويقصدون ني مصر مصر في بعض ال في وقت الاخر تي يان آه، تي يان جامونو ويقصدون مصر دان دان جوبلو مصر في وقت الاخر تي يلان يانا يان وقتي ويطلبون رزق لبر دنو اوتي ورسك وكذلك نيكي لول اهل هذا البلد وايو فيت نون رك لا نكو دون ديفه بوكا ديفه ولا ما كان امام المنتظر بيغا خامي يالا دوغال نا سيدنا الامام صلى الله عليه وسلم مينو دون خار كبيرا نكما pour mëna génn tukki ci yenn dëkk yi wa bala amu jot mabla ar rijal jotu wayu goor ya kana nekkon yazhabu daan dem ma annaa si ànd ak nit ñi wayu saafiruna muy tukki ma ahum ànd ak ñoom wa yaraw na gis nanu minhum ci moom ajaibu ay kéemtaan bi xuwatin ci kàttanam wa ak ci buhum bu yéem leen lool baylay bi nga xamee ni toll na ci génn ànd ak ñoom di tukki ñoom ku nekk da daan sawar ànd ak Seydina Limaam sallallahu alayhi wa sallam maam nee na lu tax wa yaraw na minhum dañu gisoon ci bàyyi laay ajaibu lu leen yéemoon min yi ci kàttanam wa shajaati ak jàmbaaram tux ci buhum mu yéem leen ñoom daal gis na ni daal dinaa Seydina mu daal liggéey boo siq ak moom yaay bàyyi waaye moom du bàyyi dina def li mu war a def ba def yow li nga war a def ànd ak moom du am benn coono ndax lépp loo war a liggéey rek moom dina ko jël liggéey ku nekk rek bëgg ànd ak moom mu ne wakkaana nekkoon na anshata min amsaalihi maam Maxtaar Lo nee na Seydina Limaamu kat sallallahu alayhi wa nekkoon na koo xam ne moo gënoon sawar ay moroomam mu ne bu moroom boo tegee boo ko tegee teg ay moroomam rek moo leen gën a sawar ci liggéey wa asja'a minhum fil fitnati ku ne xam na ni liggéey dafa am fitna mu ni Seydina Limaamu sallallahu alayhi wa sallam moo leen gënoon nekk jàmbaar ci fitna yi liggéey wa ahdalahum moo leen gënoon a maanu wakkaana nekkoon na it yat daan togg lexum ñeel leen saa yu nu génnee rek bàyyi laay mooy xëy mooy defar ndékki ya bu lekk jotee mooy defar añ ya defar reer ya togga ya daal moom moo koy def lexum ñeel leen wa yu inuhum daan na leen dimbali fii kulli amrin ci mbir mu ne saa yu nu génnee rek mbir ba mu manti doon bàyyi lay taxaw na ci jàppale leen wa yu inuhum daan na leen dimbali ala kulli amrin ci mbir bu mu mënti doon waaye nag waaye umuhum daan na leen jiite fi salawaati ci seen julli juróom lépp lu muy liggéey bu julli jotee da koy bàyyi dem waaye nag fu julli jote kenn mësu ko jiite moo leen di jiite ci seen waxtu julli yooyu wa kullu ma amarahum lépp loo xam ne mus na leen ko digal bihi ci moom in faalahu suñ ko defee laa yaraw na dul ci gis fiihi ci loolu ilal xayra lu dul baax waa loolu nag vraiment àddina daf ka soxla nit sooy ànd ak moom lu mu la digal dañ ci war a gis lu baax te Seydina Limaam sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na li yéeme woon ci jamono ci bi muy génn ànd ak ay moroomam dem liggéey ji ñuy dem uti wërsëg bokk na ci li leen yéemoon mooy lépp loo xamante ni digal na leen ko maanaam du leen lor am na ñoo xam ne da lay digal loo xam ne da lay lor mu ne waaye wa kullu ma amarahum lépp loo xam ne digal na bihi ci moom in faalahu ko defee laa yaroona fii ilal xayra duñ ci gis lu dul lu baax loolu moom cër la mu ni des na ba tey ci lu ko yàlla jagleeloon wa kaana kullu man kaana lahu wa kaana bàyyi lay nekkoon kulla man kaana képp koo xam ni nekk na ci ñamu daan nekkal lëxoo di ko ñeel waj un ak métit indaa bu ñaanee lëxoo ñeel ka Euh, bari amu daal di sedd fil waxtu yi ca waxtu ba saa yu ñaanee boroomam ci mettitut ku mu mënti doon ci ñu mu daan àndal ndax boo génnee lu ne dina la dal waaye lu leen mës a dal ci mettit bu ci bàyyi lay ñaanee sallallahu alayhi wa mu daal di sedd ci waxtu bi xataa ajibu min amrihi fii ijaabati du'a ñoom ñëpp dañu mës yéemu lenn rekk leen mës a yéem mooy Seydina Limaamu sallallahu alayhi lu mu ñaan mu nam gaaw a ñaanam moom def leen i yéemoon ñoom dañ ko daan wax dañ daan wax ni Seydina Limaamu day man xaw ma la la waaye lu ma ñaan yàlla yàlla nangu ko kon juboo gi mu juboo boroomam nekkul ni bi mu wootee la ko am ndax lii di xew ba ñépp a seedeel ko ci ku mus a ànd ak moom ñoom xam nan ni lii nii bi muy am di nekk ci moom boobu bàyyi laay waxagul aaji boo daaya la waaye bu ñaanee rek mu daal di nan mu ni wa axbarani xibaar nanu ci gaaw a nangob ñaana wasiirul xariyati jaraafu dëkkam ba allazi ba nga xam ne kaana nekkoon na ak akbaru minhu xalilan daan mage woon seydinaa limaamu lu tuuti ci ay at mu ni fii shabaabihim ci seen waxambaane waxuwa te moom jaraafam boobu mooy maam jaaj sàdda annahu li mbir te mbir xaala wax nanu moom maam jaaj sàdda ni safar na gaaw a nangu ñaanu climat muy man kay mën naa cee ndax safar naa tukki na maal imaam ànd ak seydinaa limaamu nax wa ndar ci dëkk bu ñuy wax ndar wala ma balax naa bi nu jotee gànjool dëkk bu ñuy wax gànjool wajat naa fekk na mu fii ca dëkk ba shababatan mabtunatan ay asaabi aha wajul batni shadid benn jigéen boo xam ni mu ngi amee natt wu tar nattu googu moo nekkoon méttitu biir woo xam ni méttitu biir wu wu tar la xataa ijtama annaas indaha ba nit ñi toogaanu ko xam nga bu nit feebaree ba amatuñ ca yaakaar ku nekk boo xëyee tëj sa kër ci ay mbokkam ñëw toogaanu ko ndax lan méttitu feebar ba mu ni munzu salaasata ayaami diiru ñetti fan tabkii ummuha yaayam a ngay jooy rek ñetti fan yaay ji mu ngay jooy parce que méttit yu doom ji àndal nelawul mënuta nelaw ñetti fan yi ay mbokkamit nelawuñu ndax mét xool ku toog ñetti fan nelaw ndax méttitu biir ak waxtu ni mu mel ni muy yàgg muy méttit woowu mu dund ko yaay jaa ngay jooy mbokk yi ñu ngay jooy amatunu yaakaar kon xam seeti nañ ko kii mocca moccal jox joxe sunguf joxe sunguf ñuy joxe ren joxe ren lu nekk nit def ko lu ne lu ne lu ne ñu def ko mettit wa tar rek te wa bàyyi bi nga xamee ni loolu am na mu ni waxultu lahum mu daal di wax yaayu xale bu jigéen woowu amee méttitu biir ba inna ma'i sa'iran lii kaana yad'u lana fi kulli shiddati ni ka ñun de ànd na nag benn xale boo xam ni sunu rakka la de waaye méttit bu nu musa am loolu ñëpp seedeel nañ ko ni bu ci ñaanee rek loolu day sedd ci saa si waa nga gis ni yàlla la mu ko mayoon dafa yéeme woon ci gaawa nañ ko ñaan ah Njaañ Sàdd daal di wax ni man wax nag yaayam yaayu yaayu yaayu xale bu jigéen bi ni ko na ma inna ma'i sa'iran lii kaana yad'u lana fi kulli shiddati ànd nag xale boo xam ne lu mu ñaan ci métit ba mu mënti doon rek lu mu métit wa tartar rek day daal di sedd mu ne waxaalu li yaayam daal di may tontu ad'un lana in daa wa ajaaba allahu da'watahu fii ma nuxtihi ma yuqib ool nu ko su ñëwee ñaan yàlla nangul ko ñaan bi lépp loo xam ne bëgg na ko dina nu ko def kon nag bu ko defee mbokk yi dina dellu si waat ak yéen ci beneen xaaj bi eggali leen histoire bi nga xam ne mooy diggante Njaañ Sàdd ak Seydina di moom alayhi wasallam ci gaaw a nangu ñaanam kon ñu ngi leen di joxaat daje insha allahu rabbi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu